ci euh, yoon wi euh, Moustapha ñu ñëw ci euh, Bougane Gueye Dany Bougan mhm. Gueye euh, Dani, euh, Sud Quotidien euh, Sud Quotidien condamné à un mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer Bougan Gueye libre de battre campagne le juge allège le réquisitoire de substitut du procureur de la République qui avait requis une peine de trois mois ferme assortie d'une amende de 500 000 francs CFA Moustapha la nouvelle est tombée depuis hier Bougan Gueye Dani. Euh, finalement, il a été relâché et écope un mois de prison avec sursis. Wa, mouté lol vais ak li vais ñi expliquer. Mhm. ñu ne waaw dara mhm. la bonne information. Mhm, la bonne information. juge bi dafa rébellion juge bi dafa euh, ba ci injure. waaye refus d'obtempérer bi gis naa ko. Mm. ci kaw loolu daan la benn weer boo xam ne doo ko tëdd. Mm. ak koppar boo xam ne da nga koy fay amaan. Mm. loolu la bi tënk mais bu ñu nekkoon dama dégg kenn si ñoom mu que gis juge na lépp ko doon dara si. Mm. parce que gendarme yi ñëw non non. chef d'accusation le retenir moo nekk refus taxawal mu à votre supérieur que dem te loolu lañ vidéo yi loolu vidéo ce mm. qui veut dire que bu wala loolu na mm. parce que loolu ñëpp ko gis dañ filmer ko taxawal taxaw supérieur ngi dem mm-hmm. loolu lañ ko ne refus lañ ko toppee juge bi ne ko mm-hmm. jàppe naa ci uteeg loolu li procureur bi doon sàkku mm-hmm. parce que procureur bi moom li mu sàkkoon moo gënoon diis moom ñetti weeru kaso la waxoon mm-hmm. un an avec sursis donc trois mois ferme mais pourquoi les procureurs aussi euh, di euh, mën a charger aussi waaw bon <laughs> loolu tamit question la. non les procureurs à chaque fois dañuy gis ne dañuy charger. Euh, dañuy dañuy charger ba mu diis souvent ba mu diis juge bi sax du leen topp xam nga nag souvent dañ leen di woowee ñoom ñooy avocat société bi. Mm. waaw ñoom société bi lañ fi nekkal mais parfois doo doo comprendre. voilà doo comprendre parfois. Mm. parce que amoon nañ fi sous Macky Sall ay taxawaay yoo xamante vraiment surtout dossier Mame Mbaye Niang mm-hmm. Ousmane Sonko. Mm-hmm. njàpp no mënee comprendre dossier Mame Niang Ousmane Sonko. Mm. bu bu dugal ñaari nit nga xamna ne lu mësaan am man tay ji su ma ñap ñu yóbbu ci yoon. Mm. xam nga procureur bu toge lu mi wax. que la loi soit appliquée. loolu lay wax nañ parce que ñun ñaa ñëpp laa fi nekkal société bi la fi nekkal ñap neenu Moustapha da kaa diffamé mais du ñeu fofu taxaw nan tëj leen Moustapha tant d'années parce que Moustapha mi ni mo def war non non lu si ëpp bokk ci procès nga daan gis. Mm. procureur day ñëw taxaw euh, sermoné leen waar waar ne ne juge bi appliqué loi bi nga xamante ne loolu lañ ci wax. Mm. mais fii procureur ñëw ñu daan euh, Ousmane Sonko ñaari weeru kaso. Mame Mbaye Niang interjeté appel nga xamante ne du laal loolu si si si si si dommage intérêt lay procureur moo daggee sa langue nga interjeté mm-hmm. appel ñu ne procureur moom lu si yoonam. Mm. donc façon de faire yooyu noonu tey jii lii est-ce que gis nga si agent judiciaire de l'État. am na ci keneen ku ñu constitué partie civile wala ne gisoo ko. dañoo bàyyi mbir mi mu continué entre ñaari camps yi euh, juge bi atte li muy de soulagement. Mm. parce que man mi wax fi démb keneen wax na ko dañ koy ñaanal que cette page soit tournée ñu avancer mm-hmm. campagne ji dem ji mm-hmm. parce que dañ euh, c'est une parenthèse malheureuse gis dund nañ ko mais quelque chose malheur est bon maintenant nag bu ci jógee yaakaar naa nag war na war na gën a xoolaat démarche am. Mm. parce que man dama ko yàgg wax. bu fi ci dañ fi benn mais sa communication d'hier euh, euh, après sa sortie on en parle. Mm-hmm. gis neen aussi on bougan bo xam ne nañ ne plus posé euh, plus tempéré dem neen sax ba muy remercier ku mel comme Sidiki Kaba ndaxte Sidiki Kaba peut-être Macky Sall moo def pro politicien. mais c'est un mm-hmm. droit de l'homme aussi cette communication on a senti vraiment un bougan bo xam ne bu gën a posé aussi Mustafa. mais dafa on a gën a posé dafa il faut a am retenu dafa war a je posé donc opposition bi. Mm. gis nga me par force je jiite ñu moo ko mon mm. moom je me ci position par force tay ma nek numéro 1 par force déedéet askan wi ñoo ñu ne Bougane kay nga nek numéro 1 <laughs> mais tay ma nek numéro 1 par force moo yobé ci li mu nek ni hmm. ba fu ñeneñ ñi taxaw sax du fa taxaw dafa leen di a dal dem def ji té lolu parfois daf koy duggal ci ay peut-être c'est son tempérament non non du tempérament mom li muy def Ousmane Sonko dafa ko Macky Sall hmm. Macky Sall naka def tibb da na ci am benn retourné bi hmm. mais est-ce que ni ni nous, ni ni ak ñom que vocabulaire bi muy utiliser moy yi muy utiliser da naka utiliser Macky Sall lolu li am donc nous dañoo ñëw rek mu les seen kaw. Hmm. kenn comprendre lan moo ko waral ne ko nag opposition xel la xam nga ni mu def nii bu ko bu ne pat may pat bi ñu dem peut-être un an deux ans ngay commencé di génne di song ndànk-ndànk dañ naan kii dafa ànd ak temps mm-hmm. mais koo xam ne dafa ñëw taxaw. sañse ba rafet nga ne ko yaa ngi commencé à soxna si ñaaw nga li nga def de. Mm-hmm. mais kooku bis bu demee ba ñaaw boo ko waxee si danaan kii parce que yàggoon na ma wax. Mm-hmm donc y a sa communication avec les gens. doon il a intérêt à revoir sa communication et ses stratégies. c'est vrai façon bi façon, bi politique. bi na si si parce que ce koy yakal c'est ëpp koy Je ne bu pas si je Si ko fi il est en sursis hein. sursis mm-hmm. mais si kaso ferme fii. Hmm. nit ñi dañ hmm. surtout at yi élection dëgmaluñ ko. et prison mom bu ñu la dóoree prison daf dafa non daf dafa dafa dafa metti bu bu da ngay tu tu vois que le gars était vraiment lessivé. Mm-hmm. sonn puis froissé nga xamné ne kenn ñaanlu ko kenn. donc fofu du place am. parce que wax dëgg yàlla nit la boo xamante ne dafay politique am entreprise am def yu nekk war na moytu yu ko yóbbu ci bërëb yooyu. Mm-hmm. kenn mënul taxaw mu ne buggaan tooñul kenn mënu koo wax. Mm. kenn mënul wax loolu. refus d'obtempérer bi ñu ko daanee ni tey ji kenn mënu wax ne amul mm, mm. parce que yi ñoo ko wane kon nay moytandiku yooyu homme politique la am na droit opposé wu nu mu ko neexee bu ko mm. neexee mi conférence de presse suba ba zéro heure mais nag nay wax lu waxu di def lu defu mais finalement est ce que on parle souvent de Bougan, sa façon de faire mais aussi de melni comme c'est devenu le mm. propre de nos nouveaux hommes politiques est ce que mon aussi euh, c'est une stratégie de lutte ou bien une stratégie de communication bo xamné japp Sénégalais di aussi euh, ce discours de guerrier ce discours de va en guerre parce que comme Barthélémy Diaz comme Ousmane Sonko aussi c'est des gens qui ils ont ce discours de guerrier waaw xam nga lu nekk dafa am jamono. man tam toujours ma fàccee leen ko mais leen politique contexte la. oui xam nga Ousmane Sonko bi muy indi discours boobu noonu dafa am lu yóbbu discours bi foofu. Mm. mais dellul ginnaaw 2016 wala 2012. Mm-hmm. ba 2021 est ce que discours boobu moo amoon ci langue politique bi amul woon. Mm. amul woon te pourtant Ousmane Sonko mi ngi doon yéeg 2019 génn na ci ak ñaata pour cent 15 pour cent la ci génn. Mm. te boobu gàtt sa gàtt sa amul woon nit ñi dañ koy fàtte. 15 Idriss Seck bam dalé dalee dem élection présidentielle ba légui benn yon la ko romb 20 pour bob il a fallu ko ñëf def bloc ci ginnaawam. Mm-hmm. bëri na fi ñu fi politique bokk fi élection bokkaat bokkati musu am 15 hmm té bi mi dem 2019 il y avait Yassine Fall les Boubacar Camara et quelques uns ñoo nekkoon ci ginnaawam rek. Mm. mu génn ci ak 15 de l'électorat. hmm wa légui booba gatsa gatsa gat sa amul woon mm. lan mo waraloon mo am 15 mm. mais parce que amna ben ben confiance bo xam sénégalais ñi ko doon am ci moom. Mm-hmm. kóolute bi mi ngi doon ñëw di yéeg di dem mais gatsa gatsa bi ak discours bu tang bi discours va guerre mais dafa am lu indi. Mm. parce que nous avançons. mais si nek ci langue bu mais da ngay lire ñap man suma ma tok ak ñetti nit nga jël kenn ki yobbu kenn ki ma mais bo ñew di ma est-ce que damay livrer mm. non damay damay damay xeex mané ki jël na sama ñaari sàqaleen pexe gisuma len hmm. man maay troisième bi non duma taxaw bo ñew duma livrer dé de. Hmm. damay xeex ak yow luma am jël nak suma hmm. yobbo suma gagné soo ma dem suma la gagné dal te buntu bi génne dem sama yoon. situation bobu lañ nekkon nak légui nak loolu moo indone benn position bi loolu c' par rapport à un temps donné. légui temps bobu weesu na mooy 2021. amna ño ñoo dañuy def copier coller. te stratégie li ci gëna bon bokku na ci copier coller. Sonko l'avait fait je le fais damay sonko sonkolu def na li mu réussir man dama ko def toujours ma wax ne échelle bi mu jaal ba yéeg bu fa jaaree ba yéeg dafay jaal di jël leen échelle ba mu nekk euh, ba ma ko daanu. Hmm. yow boo bëggee ñëw jaaraat yoon boobu doo gis foo jaar. c'est vrai te loolu moo am donc il faut que ñoom tamit ñu jéem a innover jéem a créer. Mm-hmm lolu moy lolu moy charme politique il faut que ñu nangu di créer di innover bàyyi sonko sonko lu beeg nangam ak mais cette génération bi nga xamné mom lañu am parce que quelqu'un comme Amadou Ba quelqu'un comme euh, même Tcherno Bocoum il est euh, dans euh, takku dans sam sa kàddu mais c'est quelqu'un bo xamné ne discours am nekkul gatsa gatsa Tcherno Alassane Ossalo aussi la même chose mais da ngay gis né les gens te dire te disent que ñom dañoo xaw a en fait est-ce que c'est pas aussi la jeunesse wala la population sax ñoo ñoo soxla profil euh, de politicien ku mel ni comme bougan ku mel ni comme Barthélémy Diaz ak ku mel ni comme euh, ki nga xam ne moo nekk aussi euh, le leader de Pastef Ousmane Sonko. non bu ñu bu ñu jaawalee la personne et le discours. Mm. ak le parcours. Mm. du benn personne dafa am discours am parcours am. Mm-hmm. gis nga bu doon bu doon wax gatsa gatsa rek fii am nañu fi te wax ju wax wax bu doon wax kese. mooy fal wala wax ju tàng kese mooy fal buggaan kon ba léegi bu ñu demee élection yi mooy nekk tête de liste. Hmm. bi ñuy ñëwee léegi amul lu mu leen fi yàqul. Hmm. mais du loolu boo bëggee def boo bëggul def dichotomie bi entre personne bi ak ki nga xamante ne mooy mooy discours bi. Hmm. ak parcours bi erreur dafay am Ousmane Sonko même bu amul woon boobu noonu. son parcours ak l' espoir qu'il moo ko doon may nit ñi daal koy topp ànd ak moom parce que 2021 2019 et puis il faut faire yegg rek day oui mais loolu Macky l'a vu daf koo gis ñëw. Mhm. léegi nag bi sud mhm. c'est du pain béni ci naka def ak mhm. dugal ci engrenage de violence après mais en toile de fond li fa lan naka ko ba du ko du conscient. xam ne ñun dañoo bëgg a xañ kii nga xam ne dañoo gisoon 2019 mii ñëw te mm-hmm. ñu amoon yaakaar ne bu ñëw dina fajal réew mi mm-hmm. ñu ne ñu tey doo ñëw mm-hmm. loolu moo waraloon soulèvement bi am mais du woon ñu mu fay du woon nangam du woon nangam ak nangam c'est devenu spontané loolu su may expliquer par ricochet ki doon wax noonu euh, engouement sociologique bi mu indi ak yu ni mel mm. am nga boo xoolee Ousmane Sonko boo xoolee njàpp loo may reetaan nii damay déconcentré man ngay man nga ni mu ni nga. gis nga chance bi am mooy. dafa ñëw. waaw indi benn discours boo xamante ne tey jii. Mm. jeunesse bi daanuñu ko woon dégg. loolu mooy li jiitu discours bi. Mm-hmm. pour man lépp lu mu am discours am moo ko may. ba pare discours bi dafa xam nu mu ko doon réadapté par rapport à la situation. Mm-hmm. maanaam bi mu indee discours bi ñëw. taxaw jàkkaarloog askan wi. Mhm. imagine toi jamono yoy tay ji ku ñëw da ngay créer parti da nga encore un parti de plus ngay wax. oui mu créer parti commencé op muy def ay di di di def di def ay ay déclaration mhm. jublu ko ci impôt beeg yu ni mel ñu dakk ko. Mhm. Sénégalais bëggul injustice. dàq nañ ko ñu commencé di rajo si ginnaawam di ko jàppale. nangam ak nangam ñi koy dàq muusuñ de taxul taxul ñu ne ah nañ taxaw kat comme dàq nañ ko. Mm-hmm. gis nañ ne waa ji kat mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi commencé màgg jëm kaw déedéet dañoo commencé acharnement yi. Mm-hmm. di ko song di ko song di ko song di ko song. Mm-hmm. mais bu fekkee ne nit ki dafa génn démarqué wu ci ñeneen ñi ñu gis ne ñu mu jàkkaarul ñëpp bàyyi nañ fa ñëpp song ko mais dañ naan kii am na lu mu yor ñële amul. Mm. xam nga li ma la dañ naan kii am na lu mu yor lu ñële amul loolu mu yor nag li ko ëpp lu ñu doon bàyyi xel mooy espoir. d'accord xam nga espoir boobu noonu ba léegi. moo mm. tax may leen benn benn donj bu ndaw waddu si. Mm. moo waral dem nga gis ko fële ñi ñuy toppaat ko nga gisaa ñu fen ko parce que espoir bi moo fi nekk ba tey. bis bu demee ba espoir boobu nekkatu fa bu génnee kenn du ko topp. Mm. xanaa leader politique lu ñu koy toppee yaakaar. dañuy yaakaar sa poche. wala ñu yaakaar sa doxalin wala avenir bu bu bu gën a baax suba. Mm-hmm. te yaakaar boobu moo fi nekk ba tey. moo tax à chaque fois boo ko déggee danañ amuñu droit échouer. parce que xam na ni fépp fu mu yegg ci kaw yaakaar dong la. Mhm. yaakaar mooy war a ndaw jógee Tëngéej dem jam ñaajo jël xaalisam dugal ci biir dugg toog di seetaan Ousmane Sonko mu ñëw toog wax fa benn 30 minutes wala benn une heure nga génnaat jël say bagage dem ñibbi. Mhm. loolu yaakaar du nga koy def. donc yaakaar boobu nag moo demoon bay yàqee ko ci homme politique dafa ñëw période boo xamante ne daanaka wóolatuñu woon kenn. Mm. moom mu ñëw ne leen def naa 15 ans impôt et domaine amul lu a mm. bëgg ñu liggéey dëkk bi jub jubal.

fépp mu mën a yegg ci àdduna bi discours am moo ko jox. Mhm. discours am moo ko jox ak euh, façon de ni mu koy réadapté léegi nag discours boobu mu indi woon bu mu nee ba 2021 daf koo changé. Mhm. ah parce que dafa jàkkaarloo ko xam dafa ñëw bëgg koo faagaagal. Mhm. léegi nag suba booba nag la solo tenue tenue militaire nag jàkkaarloo Macky nag. ne ko danga may rey wala ma may rey. boobaa su nekkuloon benn stratège. wala benn bête politique xam nga nu muy def. day ñëw jébbalu non état kenn mënu xeexam wax dëgg yàlla ñu gars yóbbu ko ci benn waxtaan mu def ay conciliabule nangam ak nangam mu dugg ci. d'accord accepté ñak na. mais dafa taxaw jàkkaarloo moom di xex nekk lu ma am jël def na sama testament yoy yep pour dox ci mental gars yi ni yii nangam ak nangam mu ne def len sen testament. fi ñu jëm moy cooki fin bi. lu ñu am jël mais xam na ne état lay waxal lolu tout à fait tout à fait Moustapha si.